soxlawuñ ay député man a nga lu ñu soxla ay député yu paxaw woon Macky Sall ne ko la woon woon ne na. mais non mais am na ñu jàpp ne nag euh, seen taxawaay dafa ëpp ah. loolu tamit euh, wàññi tuuti quoi ñu wàññi tuuti parce que tamit euh, dem ni baagante beeg yooyu tamit ah est-ce que leen yàqal. depuis quatre-vingts députés yëpp a waroon a def loolu. assemblée ba ba yëngatu. waaw loolu moo doon yoon nag yeneen député man dama leen wax ni ci vote de loi yi jëm. parce que fi mu doon nii Macky dafa tiit assemblée bi xam na ni loi yu bëri dañ ko tegaat ci table ji daañ andiwaat. Euh, projet de loi sur euh, la proposition de loi sur l'homosexualité pour kenn du euh, lawal ngóor jigéen Sénégal agenda la. ñoom lañ naan Omar Youm dégg naa ko président seen groupe parlementaire gaawante naan fii kenn kenn du fi andi projet de loi. boo xam ni day dooleel day dooleel góor jigéen. wala day jël suuf di ko jox président Macky Sall parce que xam nga booba lu waajal. moom xam na ne ñaari projet de loi yooyu mënta ñàkk il faut ñu am une proposition de loi boo xam ne day tegaat yoon le foncier pour que nañ koy caxat-caxatee ci nguru président Macky ñu dakk ba noppi ñu def ay commission d'enquête parlementaire pour ñu xam képp ku ñu jox sunu suuf yoo xam ne amoo droit jot ci suuf soos ñu tegaat ko caab mu am enquête bu sérieuse ñu foqarti suuf seen jox ñi nga xam ñoo nekk ci nguuru président Macky Sall xam nañ ne loolu mënta ñàkk beneen bi tamit mooy proposition de loi bu ànd sàmm jikko yi ci tappale lañ ko rejeté woon kon nag ànd sàmm jikko yi dina ko tegaat ci taable ji woo député yi nga xam mën nañ ko porter ñu waxtaan ak ñoom ñoom député yi ñu dem porté ko sans mandat impératif parce que kenn du leen jaay doole ñoom ñooy jëlal seen bopp seen sañ-sañ ñoom député yi surtout les députés de Yewwi Askan Wi dem comme assemblée nationale bam ñoo tolloo doole danañ xool kon ca ña bokk ak Macky Sall ci 83 am yooyu muy wax ñan ñoo ci nar a ñëw ànd ci ñi nga xam dañoo bëgg a aar sunu réew agenda LGBT bi arrêté ñu xool ñan ñooy bàjjenu góor jigéen yu yees parce que yu yàggee ñu bëri ñoom dàq nañ leen maintenant kon pro proposition de loi boobu mënta ñàkk. Mm-hmm. beneen proposition de loi bu ma xam ne dañ koo war a tegaat ci kii bi mooy ñu abrogé pro projet de loi bi Macky Sall dem yóbbu à l' assemblée nationale pour euh, les OGM. OGM yi mooy ni ñuy soppee. ne gàncax gi di màgge nga xam ne modifié nañ seen gènes yi ba nga xam si ku koy lekk borom xam-xam yi nee nañ cancer dina la yomb ak yenn xeetu feebar yi kooku loolu àdduna bi yëpp am na sax ay réew yu développé yoo xam ne ay association yu taxaw di xeex OGM yi te ñoom sax ñoo nu tane parce que boo duggee ci grande surface dañ naan la rayon bii OGM la bee du OGM Sénégal nag lépp ñu ngi koy jaay ci marché bi mënoo xàmmee bu nekk OGM ak bu ko nekkul kon nit ñi dañoo nar a dee ak ay cancer ak ay feebar yoo xam ni ñu koy waxee nii ñu dénk direction mais loolu noonu ah. lañ ko expliqué loolu moo am parce que ñoom ñu spécialiste am nañ yoo xamante benn labo amuñu ko Europe leen ëppi moyen fuuf te ñu ngay tiit ba dañuy teqatle bu doon la bonul la kon kenn du teqatle li nga xam ne moom mooy euh, produit bio yi ak bio produit OGM yi kon boobu proposition de loi député euh, opposition bi daañ ko teg ci table ji pour ñu abroger cette loi-là qui a été votée en catimini à l'Assemblée nationale le 3 juin à la veille des élections Macky Sall dem voté loo leen ko parce que tiitoon na ni xam na ne euh, assemblée bii ñu jëm assemblée bu an am jafe-jafe la beneen bi ci topp mooy aujourd'hui ñoom ñoo la gën a xam ne am na ay proposition de loi yoo xam foog ñu teg ko ci loi ci table ji opposition bi na ko teg pour abroger le parrainage et la parité ci tappale parce que parité ak parrainage yëpp ci tappale lañ ko defee parce que waa léegi ana ana association féministe yi gouvernement bi gouvernement bi ñu teg nii ana parité waaw léegi donc loolu la ni gis nga ñoom proposition de loi yooyu lañ tiit xam nañ ne parrainage bi c'est antidémocratique damay dem élection damay tànn ku ma neex parce que kay organiser élection yi ak kay organiser parrainage bi man maa ko fal administration maa koy wax ne ko diw ak diw éliminer leen wutal ay pexe ba éliminer leen diw ak diw mënu ma leen a bañ a tee bokk mais ñooñu garaawul mais diw ak diw éliminer leen di di di sélectionner candidat yi xëccoo ak yow kooku la président Macky Sall def depuis mu nekk fi depuis mu nekk fi au pouvoir léegi nag loo yooyu pro proposition de loi nga xam ne dañ leen def ay proposition de loi pour ñu supprimer le parrainage def ay proposition de loi pour ñu supprimer la parité def ay proposition de loi pour ñu supprimer la loi sur les OGM def ay commission d'enquête parlementaire yu dëgër léegi nag loolu la président Macky Sall xam ni sénégalais yi loolu la ñuy xaar ci opposition bi ñu am taxawaay boobu mu ñëw di jaay doole jël ay gendarme ñëw di xoqatal ay ay député yoo xam ni la euh, la ñuy def ñoo seen i moroomu député ñoo ko fa war a def parce que assemblée boo mën a dem day am coow loolu moo dul dëgg kon sénégalais bu leen kenn nax seen vote bi ngeen voté moom la député assemblée nationale ba di jëmmal kon député ya nga am ñoo taxawoon di seetaan te bokk ci opposition bi ñoom laay wax ñun soxlawuñ ay député mannequin li soxla mooy ay député yu taxaw won président Macky Sall que jaay doole bi day takk ci nii wala ci naa parce que réew mi moomu ko. li bii taxawaay lañ bëgg ci mais mën nañ ko wane sans pour autant nag ñu am benn taxawaay boo xam ne dañ leen si jam baaraamu tuuma parce que dégg nañ sax dégg nañ sax am ñu ne mënoon nañ leen see topp parce que dañoo yàq ay biens yoo xam ne ñëpp ko moom dama ne Macky Sall ak ay chroniqueur tappalekatam ay journalistes yoo xam ñu ngi ci système bi ñooy wax loolu ñi ko ñu ma dégg ñu ciy wax ñu ci ëpp ci système bi lañ bokk xam nañ ne bu système bi deewee ñoom dee nañ loolu moo tax ñuy jéem a diaboliser opposition bi di jéem a am euh, embarqué ci loolu yenn sénégalais yi comprendre yenn enjeux yi moo tax ñu jéem a diaboliser opposition am ñu leeral sénégalais yi ni la ngeen voté woon loolu moo feeñ ca assemblée ba keroog du leneen te Macky Sall nanguwu moom majorité écrasante ba mu amoon nam daan defee lay continuer di defee alors que amatul majorité sénégalais fokk daam assemblée boobu kon nag bu leen kenn nax yéen sénégalais yi pour di leen jéem a ruube uh-huh. ak di leen jéem a tàqatle ak ñi nga xam yéen yéen leen voteel ñu dem assemblée war fa am taxawaay bu yees pour que assemblée nationale bu bees am ñu fay voté ay loi ci seen intérêt yéen sénégalais yi ak di fa dindi ay loi yu leen amalul njariñ yéen sénégalais yi loolu la président Macky Sall ne loolu ngeen voté yéen sénégalais yi du fi amee assemblée nationale taxaw na par force léegi léegi assemblée assemblée boobu nga wax bu bees boobu noonu tey dañ fa gis féewaloo bu bu dooran ci ci yeewi askan wi Ahmed dara jaar fii Barthélémy Dias te ñu ne Barthélémy Dias mooy candidat candidat bu yeewi ñu def ko communiqué teewul Ahmed te euh, insisté ci candidature am féewaloo boobu noo gisee ak candidature Ahmed Aidara bi. xam nga Ahmed Aidara il faut mu xam boppam. ah bon. waaw parce que wala fi nag dañ ne xun-xunóor xamul xetam man daam position ci dëgg laa koy teg. je n'ai rien contre Ahmed Aïdara je n'ai rien contre qui que ce soit bañ déclaré bañ ma ne ñoom mook Barth yëpp dañoo déclaré seen candidature en dehors des instances de Yewwi Askan Wi fii laa ñëw ne loolu d'accord ma ci ñoom ñaan ñëpp kenn amul droit def ko ci parce que ku ci nekk ci yow poste yi nga yore muy maire bi ñoom ñaan ñëpp maire de ville lañ ñoom ñaan ñëpp ay député lañ li ñu am noonu Yewwi Askan yi moo leen ko jox ku ci demaloon sa bopp ak sa mouvement doo am tous loolu mooy dëgg fii ku fi lay layee ka cëpp-cëppi doo tus yeewi askan wi la sénégalais yi voteel et à travers yeewi askan wi le leader charismatique de yeewi askan wi muy Ousmane Sonko loolu mooy sensu vote bi ku la wax leneen ab tàppalekat la kon nag ku ci nekk ci ñoom dangaa war a yaru déglu yeewi askan wi ba mu ni diw la tànn kuñ tànn nga topp ci ginnaawam kon nag Ahmed Aïdara li mu def c'est une faute lourde inacceptable te man dama gëm ne Yewwi Askan dañu war a jël seen responsabilité. sanctionné ko. ah oui parce que on ne peut pas accepter. on ne peut pas accepter nit nekk ci biir Yewwi Askan di def lu ko neex. cest à am na ay comportement yoo xam ne Mohamed Aidara bu bu doon ak Yewwi Askan fa fan la mën a kan moo xalaatoon y a huit mois. qu'il pouvait être maire de Guédiawaye baat toute l'équipe de. Aliou Sall ak Macky Sall ak Marème Faye Sall ak ñoom ñëpp ñu àndandoo yëpp mu àndandoo euh, ñoom ñëpp ak seen i doole ak seen i ay ñoom Lat Diop fii ay Koutine fii ah ay Néné Fatoumata et cetera ñoom ñëpp àndandoo def bloc Racine Talla ñoom ñëpp mu taxaw taxañ leen sànni leen fële gañe leen législative locale gañe leen législative kan moo ko mënoon a xalaat c' parce que y' a l'ouragan Yewwi Askan Wi c' est parce que se est Askan Wi kila l'a porté bu ñu jëloon Yewwi Askan Wi bu jëloon géejawaay ko kenn xamul day gañe maa ko wax man dab. non mais Ahmed a du mérite il faut nga reconnaître ko tamit ah si maa ngi lay déglu maa ngi lay déglu mais su ma la déggee li nga wax ni dafay mel ni lépp lépp dafa revenir à Yewwi lépp tout revient à Askan Wi tout lépp. géejewaay gëm sa bopp dama ne la géejewaay laa bokk dama ne la bu demoon bu demoon moom Ahmed Aïdara à travers son mouvement géejewaay laa bokk ki ñuy wax ne mantooram la muy Malick gàkku jàppale ko. Mhm. du gagné Yewwi Askan Wi gagné. li ma la wax ni dara du ko dindi bu ñu demoon élection local suba bu ñu demoon suba élection locale. Mhm. ay dara nekk candidat au nom de son mouvement Guédiawaye laa bokk. Malick Gakou jàppale ko. yeewi askan wi am candidat waa pouvoir bi am candidat candidat ba yeewi askan wi teg même bu kenn xamul mooy gagné lii maa ngi ko wax man daam buñ lii mooy dëgg Moustapha kon nag nit da ngay xam sa bopp yow déjà mairie bi nga yor ñëpp ngi naan mënoo def résultat parce que ñu ngi xeeb sax sa niveau. mais nga war a concentré wu ci loolu pour liggéey moom d' abord ci lay profité sax pour wax ne man d' accord ma ci cumul yi. Mhm. dañoo war a démissionner de l' assemblée nationale resté ci seen i maire yi. ñoom ñëpp Barthélémy Dias bàyyi ñoom ñëpp bàyyi Birame Souleye bàyyi ñoom ñëpp dañoo war a bàyyi. dañoo wa war a bàyyi seen poste député jox ko keneen ku nekk yeewi askan wi ku nekk ci biir parce que lool loolu mooy gën a dooleel yeewi askan wi. suppléant yi par rapport ak suppléant voilà suppléant yeewi askan wi remplacé leen ñoom ñu concentré wu ci seen i maire yi. ñu liggéey man loolu laa gëm ni moo doon yoon man loolu mooy sama position. Mhm. man gëwuma cumul. parce que fii kenn amu fi doole boo xam yow rek yaa war a waabale lépp man gëwuma waabale li ma gëm mooy ñoom ñooñu ñëpp dañoo war a démissionner ci seen i poste député bàyyi ñi nga xam ñoo nekk ci list suppléant yi ñoo remplacer leen bu defee ñoom ñu gën a def ay résultats. ca fan nekk mais ñoom xalaatuñ ko sax parce que Birame nii nekk nekk président. déggoo ma la wax ak koo mën a doon dama ne la li ma gëm mooy dañoo war a démissionner de leur poste de député ñu dem ñoom ñëpp nekk ci seeni gox subaak ngoon ñu nekk ci jafe-jafe yeewi euh, euh, euh, yeewi askan wi parce que yeewi askan wi au-delà de la coalition la philosophie de yeewi askan wi mooy dem yeewi askan wi parce que dañoo sonn ci nooteel bu mu nooteel bi ñu nekk ak ja ak ni leen di jaayee doole nga xam ne seen i jafe-jafe bu ñu leen ci génnee rek daan yeewi seen bopp te ñoom am nañ ci ay pexe ku ci nekk ci sa localité dem wuti ay partenariat dem liggéey dem xalaat dem teg ay stratégie pour former les jeunes. dem ay stratégie mesdames est-ce que est-ce que bataille perchoir c'était pas perdu d'avance jaar na ne le. ñetti déjà candidat c'était perdu moom laa lay wax loolu moo dul yoon d'abord mais damaa d'abord. ñaalu non intercoalition bi laa bëgg a dama ca ci Yewwi Askan Wi d'abord. parce que mooy question bi nga laaj lu tax mu am ñaari candidat bala maa ñëw ci intercoalition bi damaa déparé ci Yewwi Askan Wi am ñaari candidat c'est inacceptable ki yeewee askan wi tànn moom la ñëpp waroon topp ci ginnaaw loolu mooy dëgg mais taxaw fee di euh, jéem a diviser les voix de yeewee askan wi kooku le fait que ay dara def ko c'est une chose que moi j'ai déploré et que li ma gëm mooy yeewee askan wi dafa war a jël ay responsabilités parce que ñun euh, euh, mënuñu am ci sunu biir koo xam ne day ñëw di saboter parce que li ñuy def sa très sérieux c'est une alternative sabotage nga ko jàppee non sabotage la. c'est du ah, sabotage est-ce que doon ambition. non non du la ak peut-être yeneen ay am ay ay ay ay intérêt personnel et cetera et man je soupçonne plein de choses. Ah parce que bu fe ah oui mais bu fekkente ne yow dangaa nekk ci opposition bi. yow sa bopp sax waxal nga sa bopp avant loolu que bu opposition bi bari lee ay candidats ça veut dire que dañuy fàkkal yoon nguur gi moo ko wax moom ay dara mm-hmm. kon su demee bokk ci ñooy diviser opposition bi ça veut dire ngay fàkkal yoon nguur gi loolu mooy dëgg. kon nag loolu c'est un comportement inacceptable loolu c'est à rectifier bu fekkee dafa bëgg a nekk ci biir yeewi askan ba noppi bëgg faa nekk di def lu arrangé nguur gi nag yeewi askanu jël ay responsabilités parce que fii comme ni ma la waxee ku fi mën a lay lay doo ci dara yeewi askan mun ñu ko yàqal parce que yeewi askan wi res soudé ci ñi ëpp doole ci yeewi askan parce que yeewi askan wi kañ la mën a am euh, casture mooy tey jii ñu ne woon parti ëpp doole yi ko composé jàppante nañ tey jii buñ ne woon tey jii Pastef ak euh, taxaw Sénégal ak PUR jàppante nañ wala ñu ngay xeexoo ñu ngay ŋaayoo loolu mën na yàqal Yewwi Askan mais loo l'ossature de Yewwi Askan Wi reste soudée actuellement contrairement ak rumeurs yi ak li may dégg waa pouvoir bi di ko wax diggante Ousmane Sonko ak Khalifa Sall ak euh, euh, Yum amul benn problème mën naa wax sax ak diggante mën naa wax sax Moustapha Sy comme moom mooy leader spirituel ñoom seen biir ñoom ñetti euh, parti ëpp doole Yewwi Askan Wi amuñu benn problème seen biir loolu mooy dëgg maintenant nag ñu am dañoo am seen i mouvement ak seen affaire mën na ñoom meer ak wax fee ak nit ñi di leen manipuler naan Yewwi Askan Wi tas na nu Yewwi Askan Wi tase Yewwi Askan Wi tant tant ñoom ñi nga xam si ñoom ñooy piliers yi amuñu benn problème seen biir Yewwi Askan Wi mënut a tas te Yewwi Askan Wi tas sax. ok ok eh, yàqalul Yewwi Askan Wi pourquoi parce que Yewwi Askan Wi Yewwi Askan Wi prévoir na tas. loolu la nit ñuy fàtte après législative donc man yooyu askan wi dani nañ ànd local nañ ànd législative bu ñu demee présidentielle ku bëgg a samp sa ndënd sampal kon tey ji même bu ñu demoon ba Khalifa Sall nekk candidat euh, Cheikh Youm nekk candidat Ousmane Sonko nekk candidat Déthié Fall nekk candidat sax tax taxul lañ waxante woon mu tas parce que loolu lañ waxante te looloo gën ci ñoom li gën ci ñoom sax kandida yi bari parce que bu candidat yi baree moo gën a arrangé Euh, opposition bi. Mhm. parce que ñoom ci seen charte dañ ni bu ñu demee deuxième tour ku raw ci opposition bi moom la ñu te ku ne xam na ni fii Sénégal kenn mënut a fi gagné élection. Euh, dès le mais mais ñëwal ma ci intercoalition kon nag nga xam moo xew ci candidature yi. Mhm. première njombe bi mooy Yewwi Askan Wi am ñaari candidat du fait que Ahmed Aïdara dafa taxaw ne par force day nekk candidat loolu c'est inacceptable deuxième chose bi mooy intercoalition bi ñoom ñoo jaayoon Sénégalais yi ne ñoo ànd c'est vrai que alliance stratégique la c'est pas une alliance programmatique parce que Assemblée nationale l'objectif est clair c'est daal di l'action du gouvernement mettre en place des commissions d'enquête parlementaire nekkal fa askan wi di saytu ni réew mi di doxe loolu mooy Assemblée nationale amul beneen programme moo tax ñu doon wax ay programme de législature kii et cetera ma ñi xamuñu lan mooy assemblée contrat de législature contrat de législature yëpp du loolu fii euh, assemblée bi ni muy doxee mooy 15 mois yi fi ñu contrôler président Macky Sall ba du caxat-caxatee contrôlé ko ba gouvernement bi nekkal fi sénégalais yi ba yenn loi yi nga moo nar a yàq ko fa loolu mooy um, loolu moo doon objectif yi donc taxawaay rek la laaj laajul leneen hmm. pour que fii mois moom président Macky Sall ak abal ñu maintenant nag léegi